sayyidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin uh, mbokki jullit yi ñu ngi leen di delloo ñu ngi leen di nuyu nuyuwaat di leen ndokkeel ci weer wu tedd uh, wu mag wi ci fan yu mujj yu tedd yi di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa li ñu ci li ñu ko ci namm jaamu yàlla nañu ko nangul li ñu ci dal ci ay rëq-rëq yàlla nañu ko sunu borom soppil ay yiw kon mbokk yi ni ñu ko baaxoo rek ci jumaay Daarul Muxti muassasatul Wafa bi xuquuqil iman boroom xam-xam yi nga xam ne tànnoon nañ leen diirub weeru koor wi yëpp te yi ñu dalal menn mbokk ci jataay bi ndax du tey la fi jëkk jaar jaarul mosoon na fi jaar kon mbokk moomu la ñu dalal tey mu fas yéene ñoo indil benn tomb bu am solo boo xam ne bu nu ko jàngatee incha allah ñun ñëpp dañ ci mën a jariñ Euh, mbokk moom nag bala ñu ko jox kàddu gi danañ xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram xëy na bari na waaye nag bu ñu ci xamlee tuuti rek la ci des moom dana mën a yóbbaale la ci kon mbokk mi ñu dalal tey mooy Cheikh euh, Mouhamadou Moustapha Mbacké sëriñ Moustapha Mbacké ñu gën koo xam ci sëriñ Moustapha Kaolack wala sëriñ Moustapha moom sëriñ Abbas Mbacké moom sëriñ Moussa Mbacké Farimata Lo euh, sëriñ Moustapha moomu nag ni ñu ko xamee rek. di doomi soxna joo xam ne mu ngi gane àdduna Touba ca Touba googu it foofee la jànge alxuraanul karim ba yàlla sunu borom defal ko ci tawféex yi nga xam ne moom lañ moom moom lañ ci defal ku ku jàng alxuraan gannaaw ba nag bi nga xam ne jàng na alxuraan ba noppi ni ko doomi soxna yi baaxoo def muy wër nag ci barab yi nga xam ne barabu sàkkukaayu xam-xam la ci la deme nag ci benn mahad benn institut boo xam ne bii maam Jaara Buso la ca Poroxaan foofee la yàlla dogal mu jàng fa ba am li ñuy wax asahaada al ibtidaaiya muy primaire gannaaw ba nag yëmul foofa dafa continuer waat am njàngam dem ci euh, Azhar yi ngeen xam muy Sëñ Murtala yi nga xam ne école Sëñ Murtala yi nga xam ne moom la sos ci biir Sénégal ngir jàngale lislaam école boobu nga xam ne moo nekk Kaolack foofee la sëñ bi nekk am fa juróom-ñaari at jànge fa ba am fa ñaari diplôme yi muy asahaada al ihdaadiya wa foofee la jànge ba am ñaari diplôme yooyu brevet ak bac ba ci 1997 ci la fa jóge nag dem ci benn université islamique bu mag boo xam ne munassama al mu'tamar al islami yi moo koy moo ko moo ko samp fële ci Niger ci Niger googu ngeen xam fa la fa la sëriñ bi jógee mille fii Sénégal la jógee 1997 dem Niger ci jàmmaati islamique boobu nekk fa ba 2003 ca la yàlla dogal nag mu daal defee génn nag am diplôme bu kawe boo xam ne bii moom lañuy wax licence maîtrise moom la am ci loxol arabia ak dirasaat al islamiya ak dirasaat al adabiya ci loxo al arabiya ginnaaw bi nag la dellusiwaat Touba bi mu ñëwee it yëmut foofa mu daal di bokk ci concours yi nga xam ne moom la gouvernement bi di organiser yàlla dogal concours boobee sëriñ bi bokk ca ba admis ca daal di dem école normale supérieure foofee la defe formation ba fi mu ne ñuy wax ak yéen mi ngi bokk ci ñi nga xam ne gouvernement bi tànn na leen ñuy jàngale ci école gouvernement bi mi ngi nekk kawlax ci école ci benn lycée bu mag boobu ngeen xam ne moom la ñuy wax lycée wala jooju Ndiaye foofee la nekk dafa jàngale njàngaleem diine di fa jàngale loxol arabia euh, yëmut foofa it li nga xam ne moom la doomi soxna yi euh, baaxoo def rek ci la nekk mu nekk imaam itam ci benn jumaa boo xam bi jumaay Cheikh Abdul Xaadir la ju nekk kawlax foofi fii fa la fi mu toll nii may wax yow 2005 la fa tàmbale nekk imam dafa joxe ay dars ci wàllu diine ba fi mu ne sëriñ bi foofu la nekk. niñ ko baaxoo ni ni doomi soxna baaxoo def it noonu def lii rek nga xam ne ci la moom la war a def tey muy jox nit ñi wàllu benn dars boo xam ne darsu diine lay doon wala loo xam ne nit mën na koo jëriñoo ci loolu lay xëy ci lay gont kon ci école yi suñu Mourtalla yooyu dana fa joxe dana fa joxe dana fa jàngale. kon daal sëriñ bii di sëriñ Moustapha moom sëriñ Abbas moom lañ dalal tey muy mbokk moo xam ne mi yàgg na fii ñëw ci jataay bi kon tey jii moom lañ dalalaat mu ñëwaat fekkewaat ak ñun jotaay bi thème bi mu war a waxtaane nag mooy al waqfu al islaam yi yaakaar naa ne la boo xam ne bu am solo la boo xam ne nit ñi war nañ koo xam bu baax a baax du ñu ci dañ koy ginnaaw waxtu waa gi dem dañ koy bàyyi rek mu dugg ci thème bi kon yàlla na ko suñu borom defal tawfeex te defal na ko ñu ngi koy dalal jàmm fii ci Darou Moukhty di ko wax ahlan wa sahlan ci barab boo xam ne ci barab ci barabam yi bokk kon loolu daal lañ doon joxe ci lu gàtt rek ci sëriñ bi ñu ngi koy dalal jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wasalaatu wasalaamu ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati al abdaani wa shifaiha wa nuuri al absaari wa diyaiha muhammadin habibil haq wa saddaqa iz qaal iza maata ibnu aadam inqataa amaluhu illa min thalath waladun saalixun yadcu lah ilmun yuntafacu bih sadaqatun jaariya aw kama qaal ixwata alimaani wal iraada nuxayikum bi axsani tahiyaati wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh saa'ilina allaha azza wa jal أن يتقبل منا هذه الأيام المباركة التي فرضت على الأمة المحمدية كما فرضت على الأمم السابقة والهدف من ذلك حصول تقوى الله سبحانه وتعالى bokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi yëkkati sunu kàddu muy kàddu yi jéggalu jëme ko ci sunu kilifa yu baax yi ñu bokkal jataay bi di nuyu bu baax mu assasatul wafa bi xuquqil imaan ci seen yittewoo gu am solo gi ñu yittewoo mbiru diine ba saa su weeru koor jotee ñu seet ay boroomi xam-xam ñëw ñuy waxtaan ak askan wi ci lu jëm ci mbiru diine ci lu jëm ci mbiru àddina ak lu mën a jegal seen tey ak seen ëllëg ñoo ngi nuyu bu baax sunu xarit sunu wëllëre sëriñ Modou Mbakke nga xam ne noo bokkoon lépp ci daara ji jamono yi mu nekkee Kawlax di nuyu bu baax sëriñ osmaan moom sëriñ xaalit di suñu wëllëre di suñu xarit ñu bokk tool bu nuy yëngu fële ca Kawlax di nuyu sëriñ Mohamed ak mboolem ñi leen di jàppale ci liggéey bi di ziyaara bu baax saaxiba sumuwu sëriñ Abbas mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootug borom daarul moxti ñaanal ko yàlla suñ boroom borom nal ko lool may ko tawféex di ziyaare bu baax kuutaayam lii ci jataay bi mu sëriñ Abdou Samad ñaanal ko yàlla suñ boroom yàggal ko fi lool te wéral ko du ñu guddal waaye dañuy dugg rek ci li nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey te mu di lu am solo waaye li muy am am solo gis nañ ne lu bari ci nit ñi ñenn ñi ump na leen ñi ci des ginnaawal nañ ko ngir ñàkk xam mu di li ñuy tuddee al waqfu al islaami suñu waxee nag al waqfu al mel na ni baat bi dana xaw a jafe lool ci amal ko am prix ci wolof ndax soo demee ci téere yi wala ci daara ji suñuy jàngale wax fu moom ñenn ñuy waqafle lañ koy wax ñenn ñi di ko wax ubusle waaye baat bu mu ci mën a doon prix mu mu ci mën a doon rekk su leeree rek danañ xam baat boobu lan muy jublu gi suñu waxee alwaqful islaam yi nag mooy bépp sarax boo xam ne nit ki dana ko joxe sarax ba dem waaye la jur sarax ba dafay des bépp sarax boo xam ne nit ki daf koy joxe sarax ba génn waaye la jur sarax ba di fi des loolu mooy wax fa moo joxoon benn misaal rek nit ki su tabaxoon génn kër ne kër gi kat dama koy luye waaye lépp lu ciy génn def naa ko ci jumaay daarul musti ji su boobaa lay génne ca kër gi wax fu la la cay génne ab sarax lay tollool waaye teewut cosaanul alal ji moom mi ngi fit day continuer weer wu nekk wala at mu ne mu génne dara wala mu jël lu mel ni ab tool moo xam tool lu mën a doon loo xam ne day génne meññet mu ne tool bii day joxe naa ko ci yoonu yàlla meññet mu ci génnati def naa ko ci yoon def naa ko ci ci yoonu yàlla loolu mooy waqf mooy nga jël ci sa alal dara loo xam ne dafay génne dara la muy génne nga di ko joxe nga di ko joxe ngir jëm yàlla loolu mooy waqf waaye du tee cosaan li nag moom daf nekk sax fi waaye nag saa yoo foo dara moom nit ki moomatul loola kon loolu mooy waqf mooy nit ki mu jël ci alalam dara moo xam ay pàkk la wala ay tool la wala wala ay mbubbi koŋ la wala lu mën a génne alal la alal ja cay génn mu joxe ko ngir jëmmi yàlla waaye cosaanul alal ja nag dafay des di yooyu di génne waqfu nag wuute na ak sarax wuute na ak sarax ndax sarax moom lii seen wuute mooy wax fu lii génn alal ji dafiy des waaye sarax bi moom alal ji mooy dem directement day alal ji mooy dem bu nit génne woon xaalis saraxe ko ki nga ko sarax moom day jëfandikoo day jëfandikoo day jëfandikoo xaalis ba benn yoon mu jeex waaye su dee wax fu nag li muy jëfandikoo jamono bu ne day ñëw fi moom saa su ne liñ ko wax waqful day am lu fay jóge di ñëw ci moom maanaam jamono bu ne da cee am dara waaye nag lañ ko wax ful moom du ko sañ a jaay du ko sañ a maye waaye moom it moom mi ko waqf sañu koo jaay sañu koo maye ak njaboot tamit sañu ñu ko doon suñ ñu ko doon waqfu bokk ci nizaam yi nga xam ne islaam da koo teg ngir xeex ndóol ngir xeex ak ñàkk loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon ko solo su am solo lool jox ko makaana bu rëy ci diine suñu ñëwee ci biir loolu dana dana dana gën a leer moo tax européens yi sax bi ñu demee ba lislaam dem ba néew doole ci seen kanam dañuy gis ne waqf foofu waqf moo jur li ñuy tuddee société civile société civile yi ñuy xam ci réew yi donte ginnaaw bi soppi nañ ko waaye tubaab yi ñu ngi ko jëlee ci al waqful islaam yi ci lañ ko jëlee li ñuy tuddee société civile ci waqfu islaam yi la jóge mooy ñi nga xam ne seen yitte mooy dimbale askan wi dimbale dimbale askan wi te wax fu moom li ko taxoon a jóg mooy dimbale askan wi ba jëlee fi ak ak ñàkk ba jëlee fi ak ñàkk. wax fu nekk na di benn organisme wala benn organisation boo xam ne toog na lu mat fukki siècle ak ñett di taxaw lislaam fukki siècle ak ñett yoo xam ne doole ju lislaam am fu lislaam yegg rek mën nañ ne waqf moo ko fa yeggale mën nañ ne waqf moo ko fa moo ko fa yeggale ci anamam yi nga xam ne moom lañ koy defee te incha allahu danañ ci danañ ci gën a ñëw ba ci daw dawlal osmania mooy l'empire ottoman ci lañ gis ne ci bi tubaab yi ñëwee ngir bëgg a daane waqf bëgg a daane dawlal dawlal osmania li ñu njëkk a def mooy daane waqf ndax booba fekk na jumaa yi wax foo leen yore boroom xam-xam yi fu moo leen yore gëstukat yi wax foo leen di dimbale armée bi fu moo koy moo koy financé mu dugal ne léegi bi mu geeree ak dawlal osmaan yi ay yoon te mënalu ko dara dafa seet source bi nga xam ne mooy financé dawlal osmaan ya mu màbb mu màbb mu màbb source ba man baa boobu te mooy waqf daal di ne léegi dafa bëgg fexe ba wax waqful islaam yi ñu organiser ko ba mu mën a man di dugal loxoom ci bépp xeeti dundin wu nit ki dund waaye lan la ci mujjee mooy fexe ba yàq wax fu fexe ba jëlee ko fi fexe ba jëlee ko fi waaye dañuy gis ne bokk na ci njariñ yi fu jariñ lislaam mooy mooy colonisateur bi bi mu ñëwee ci réewu jullit ñi ful islaam yi rekk moo woon moo woon mu mën a daan jullit ñi ndax kenn ku nekk fa nga nekk wax foog lay dimbale dimbale goo xam ne soxla woo dara sa diine jaral la sa bakkan sa xam-xam jaral la sa dund gi yépp nga mën ko cee jeexal loolu di doole ji lislaam amoon armée l'islam islaamik bi doole ji mu amoon yépp li mu daan dunde li mu daan jënde arme li mu daan waajalee ay jàmbaaram lépp ci alal ji daan jóge ci waqf ci lañ ko daan def waaye bi tubaab yi ñëwee fexe ba daane loolu fexe ba jële fi wax fu ci la ci lañ fexe ba indiwaat li ñuy tuddee état te bu ñu seetee fu ci ni ma ko misaalee léegi dana dana tolloog ci suñ jamono yi luy tolloog ministre des finance ndax nit ñi alal jiñ daan joxe ngir yàlla te alal jooju daa jur alal wax foo ko daan saytu di ci financer mboolem lu lislaam soxla kon na kon ministre des finance waaye bi état yi ñëwee xam ngeen état dafay wut li ñuy tuddee ministère ministère des finance hmm? ministère de finance la am boo xam ne mooy saytu wàllu alal ji te loolu dafay wuute ak waqful islaam yi moo tax réew yu bari ci réew yu jullit ñi bi ñu changé seen constitution daf koy état li ñu njëkk a def mooy fexe ba éliminer waqfu wax ne état moom moo war a tabax école moo war a tabax juma moo war a tabax daara moo war a dundal nit ñi moo war a dimbale néew ji doole te loolu waqf foo ko daa def ak soppi ku daa di am réew yi boo jëlee réew mi nga xam ne moo njëkk moo njëkk dind ci constitution am mbirum waqf mooy Turquie Turquie bi dawlal osmaniya daanoo Mustafa Kemal Atatürk taxaw i'lan dawlatu Turkiya badalan min min min min euh, dawlal osmaniya ci 1947 waaye xam nga loolu 1924 la ci 1947 ci la dindi nizaamul waqful islaami ci ay programme soo demee Suuriya ñoom it ci 1947 moom it ci lañ dindi nizaamul waqful islaami Misra 1952 Iraq 1954 ba ci Maghrib bi 1977 ci lañ nizaam wala lu waqfu yoroon état bi fexe ba fexe ba. fexe ba nangu ko lu dul bàyyeeku yu néew a néew muy ay tabax ay jàkka ay tabaxal nit benn benn kii wala barnaamiju iftaaru saim yu ndaw ndawaan yooyu rek lañ ko bàyyee waaye li ëpp doole te mu yoroon ko dañ koo nangu ci moom ku waxtaanee fu nag mbir mu nit war a waxtaanee ci diine war nga war naa am cosaan ci diine noonu la waqful islaam yi amee cosaan ci diine am ko ci alquran am ko ci sunna am ko ci ijmaa maanaam mashruuya bi mashruuyatul waqf min alqurani wa min alsunna wa min al ijmaa soo demee ci alquran da ngay fekk suñ boroom ci aaya yu bari muy soññ nit ñi ci jëf lu baax jëf lu baax te waqfu jëf lu baax la ndax jël sa alal ji ne sama alal jii de lépp lu ci jógeeti def naa ko nañ ma ko defal ci yoonu yàlla loolu jëf lu baax la moo tax alxuraan di wax ne aoudu billahi min alsheytaan arrajim ya ayuha alladina amanu rkucu wasjudu wacbudu rabbakum wafaalu alxayra laallakum tuflixuun yéen gaa ñi gëm yàlla na ngeen di julli te mooy di rukkoo ak di sujjóotal seen boroom te ngeen jaamu yàlla seen boroom waaye wafaalul xayra na di jëf lu baax te ku wax jëf lu baax doo ci génne waqf mënoo génne waqf ci jëf lu baax donte maanaam yi am la jëf lu baax dafay dugg ci biir ndax ndax wax fu ci xeeti jëf yu baax yi ci la bokk suñ borom waxaat ne lan bir birra xatta tunfiqu mimma na du ngeen am li ngeen gën a bëgg mukk lu dul ne dangeen a joxe li ngeen gën a bëgg te joxe li nga gën a bëgg nit ki daf bëgg alal te lim gën a bëgg ci alalam mooy joxe ci alal ji te alal ji di fi des joxe ci alal ji te alal ji di fi des maanaa daalika bu amoon ab tool muy watt di joxe ca tool ba te tool ba des fa moo ko gënal mu joxe tool ba yépp su amoon ab béréb béréb ba di liggéey mu di ca joxe ci yoonu yàlla ba pare bërëb ba di fa des moo ko gënal mu joxe béréb ba yépp kon lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuna kon maanaa aay bi làmboon a waqf ndax waqf génn ci génn ci ndax waqf benn la ci jëf yu yi nga xam ne yi nga xam ne ay jëf yu baax la danañ ci ñëw ci abu talha keroog bi nga xame ne aaya ji wàcc na nan la doxaleek aaya bi ci waqf suñ boroom waxaat ne inna nahnu nuxyi al mawta wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum suñ boroom nee na ñun suñ boroom day man yàlla day man maay dekkal doomu aadama ginnaaw boo xamee ne nekk na nekk na ci ne faatu na ba nekk ci kaw suuf waaye dinañ bind wan ko lépp loo xame ne jëfoon na ko hmm? wa naktubu ma qaddamu ak lan wa athaarahum ak seeni jeexital li ñu fi bàyyi ginnaaw bu ñu faatoo kon nit ki lim fi bàyyi ginnaaw bu faatoo wax fu dana dugg foofu ndax su amoon su tabaxoon jàkka wala mu tabax jumaa jumaa jooju yool ba da koy fekk fam ne ndax ku tabax jumaa def nga waqf ku tabax jàkka def nga waqf koo xam ne tabax nga daaray alquran ngir jëm yàlla nit ñi di ca jàng def nga waqf ndax def nga ko fi nit ñi di ci jariñu ku bënn ab teen def nga wax waqf te jëf yooyu day topp nit ki ginnaaw bu faatoo ginnaaw bu faatoo loolu tax suñ borom ne li nit ki li nit doomu aadama lii di ay jeexitam ginnaaw bu fi bàyyi sax dama ko koy bindal fekk moom bàyyi koo na fi na fi ba noppi kon loolu ay aayaat la yoo xam ne dafay tegtale solo soo xamee ne so waqfu am na ko ci ci ci diine moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu demee ci ay ahadis aaya jii ñu ñu njëkkoon a wax mooy fi suñ boroom di waxee ne lan tanaalul birra xat gis nga tool bi mi ngi fi taxaw ñu wax fu ko waaye la muy génne moom lañuy ñuy séddale di doole yi gis nga loolu lenn la ci lenn la ci ahadis yi wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëflante ak jëflante na ak waaye wax na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay ahadis yu bari ñu man cee jàpp xadis boo xam ne abu hurayra nettali na ko te ñépp mokkal ko muy yonente bi sallallahu alayhi fi muy wax ne iza mata ibnu aadam inqata amaluhu illa min thalath sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafau bi aw waladun saalihun yad'u nee na doomu aadama su ay jëfam jeex na mënatul defal boppam dara lu koy may aw yiw lu dul ñett nag mën na ko may aw yiw ginnaaw bu fi bàyyi ko mu mel ni dañ ko ne yaa rasulullahi ban ak ban ak ban la li alquran jox ko ay nit ñu di ca jàng wala mu jënd ay kaamil alquran def ko ci ay jumaa wala jàkka nit ñi di ca jàng nee na loolu fu ne yool ba da ko cay fekk aw masjidan banaa wala jàkka ju mu tabax loola ab yoolam du dagg aw baytan libni sabil walla mu tabax kër goo xam ne doxandeem yi wala néew ji doole yi wala jirim yi moom la ko jegleel ñoo ñu dëkkee fa su boobaa loola bokk na ci li koy may ab yool boo demee ci xadis yi nga xam ne day soññee ci waxfu Seydina Usmaan ibn Affaan wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñu gàddaayee ñëw madinatul munawwara amuloon benn amuloon ay naanuwaay ci ay teen bari foon benn teen rekk moo fa amoon bu ñuy wax biiru ruuma benn yahuud yi moo ko moomoon waaye yahuud yi boobu danaa def kuroot ci teen bi baat boo génne joxe mudd jullit ñi néewoon doole di ay fuqara amuñu lu ñu naan yonent bi sallallahu alayhi dajale saxaaba yi ne leen anakan ci yéen mooy jënd teen bi def ko ci yoonu yàlla jullit ñépp yem ci ku bëgg a naan naan ku bëgg a wëgg wëgg ku bëgg a jàpp jàpp ku ko def day warlul naa la aljanna képp ku jënd teen bi jox ko jullit ñi ñi di ci naan warlul naa la aljanna Seydina Ousmane bun Affan nee na ma dem ci borom teen bi wax ak moom mu jaay ma ko ci prix bu cher mu jënd teen ba joxe ko ci yoonu yàlla yonent bi yonent bi gaaranteel ko ca aljanna gis nga kon bënnub teen ci ci ci ci waqfu ci la bokk ci waqfu ci la bokk kon bu ñu ko toppee mën nañ ci indi yu bare bari waaye ñu waaxoon teg waxtu wi rek kañ la waqfu dugg ci lislaam kañ la wax waqfu dugg ci lislaam keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee jóge Madina jóge Makka ñëw war a jumaa ji mu njëkk a tabax mooy jumaa ji ñu njëkk a def ci waqfu ndax wax na wax nañu ne tabax jumaa waqfu la te yonent bi mu ñëwee xubaa mas ji du Quba mooy jàkk ji yonent bi sallallahu salaam wa sallam njëkk a tabax bàyyi ko fa jullit ñi di fat di jullit ñi continue di ci jaamu yàlla kon mooy waqfu bi njëkk a def ci lislaam bi mu ci jógee mooy almasjidu nabawi sharif mooy jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii mu tëdd mooy ñaareelu jumaa boo xam ne def nañ ko ci waqful islaami ndax yonent bi da koo tabax joxe ko jullit ñépp bokk ko ku fa dem mën caa julli comme ni mu def Madina masjidu Quba masjidu Quba li ma waxoon ci bokk na ci waqfu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def dafa am benn saxaa benn yahudi boo xam ne dafa amoon juróom-ñaari tool yi tàndarma yu mag waaye mu bokkoon ci ñi waroon a dem xare Uhud mu wax ne sama juróom-ñaari tool yi tàndarma yi saa su ma fi bàyyi ko jox naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ma ko defal ci yoonu yàlla su ma ñibbisiwul su ma ñibbisee nag mu jëlaat samay tool yàlla dogal mu dem ca xare ba daal di fay faatu bi mu faatoo yonent bi jël juróom-ñaari tool yépp def ko waqf maanaam bàyyi fa tool ya tool ya ne fi waaye meññeet mu mu génne ñu séddale ko jullit ñi tool yi da ko fa bàyyi tool yi nekk fi waaye lu si génnee rek dañ koo def jox ko jullit ñi ñu di ko séddoo di ci jariñu loolu mooy wax waqf kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko Seydina Umar ibn dafa amoon toolam bu mag a mag bu mu amoon ca Xaybar doon ko lijjanti mu dëgër lool keroog bi mu si jotee mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man de damaa am ab tool ca xaybar mu musuma am tool bu yaatoo noonu tool bu baaxee noonu ma lay laaj ban ndigal nga ma ciy jox yaa rasulullah yonent bi ne ko su la neexee nga def ko fu maanaam nga bàyyi fi tool bi te lu ci génneeti nga yéene ko jullit yi nga jox ko jullit ñi naa Omar ne ko def naa ko waqfu jël naa sama tool boobu def ko mu nekk waqfu ci yoonu yàlla noonu la waqf wéyee ba ci boo ñëwee ci al asrul amawi wax fuy gën na faa yaatu lool lu tax mu gën a yaatu mooy futuxaat islaamiya bi lislaam tasaaroo fenn fu nekk lislaam yegg fa nit ñi xam dëgg dëgg li waqf mën a jariñ nit li fu mën a jariñ nit ci la nit ñi jël seeni alal di ko def ci yoonu yàlla di ko def ci yoonu yàlla ci buntu waqfu moo tax waqfu yaatu lool ci jamonoy ci jamonoy al asru al amawi ba amoon na direction spéciale boo xam ne wax waqfu rek la daan toppatoo noonu la waqfu gën a yaatoo soo ñëwee ci al asru al abbaasi ba nga xam ne moom dafa amoon lu ñuy tuddee sadrul fu sax nga xam ne dafa amoon lu ñuy tuddee sadrul waqfu wax nañ ne ci jamonoy dawlal abbaasiya waqfu moo yore woon ministre de la justice nga xam ne sulta tanfisiya yilifuloon alqada nga xam ne da ngay seet ñun tey ñoo ngi ci troisième millénaire suñu juge ak avocat yi ñi ngi laaj ne ministre de la justice warta yilif warta yilif attekat yi ndekete loolu lislaam moom doxaloon na ko bu yàgg ca dawlal ab dawlal dawlal abbasiya booba al waxfu moo yilifoon moo yilifoon ministère de la justice nga xam ne mboolem ñuy àtte ak mboolem lu ñuy àtte ak ak ak ak palais de justice yi ñuy war a àtte lépp waqful islam yi moo koy financé su ko defee àttekat yi dañuy dañuy libre dañuy am autonome duñ lekk ger soxlaaluñ kenn dara soxlaa luñ soxlaa kenn dara danañ ci ñëw ci kanam insha allah ba mu gën ba mu gën ba mu gën a yaatu ku waxtaanee waqfu xam ne waqfu war na am ay ponk war na am ay ay ponk yoo xam ne mën nañ ne mooy ponki waqfu ponki fu nag ñeenti ponk rek la bi ci njëkk mooy almawquuf mooy alal ji nit kiy taxawal def ko ci yoonu yàlla moo xam kër la moo xam ay tool la moo xam ay pàkk la moo xam lu mu mën a doon loo xam ne alal jët buñ ko lekkee du jeex lépp loo xam ne nag bu ko nit ki lekkee mu jeex loolu du doon wax fu sarax lay doon kenn mënta jël xaalis def ko wax fu ndax xaalis boo ko lekkee dafay jeex mun du nekk wax fu xaalis mënta nekk wax fu ndax alal dafay jeex ay sondeel kenn mënu ko def wax fu kenn mënta jënd ay sondeel indi ko ci jàkka ji wax ne sondeel yi wax fu la parce que sondeel bu ñu ko taalee day jeex loolu sarax la waaye lépp loo xam ne dañ koy jëfandikoo ba noppi cosaan li des fi mu des loolu mooy waqfu nit ki nit ki dafa tabax kër gu baax mu misaale woon sànq jël kër gi ne da koy luye waaye location bi lu ci génn nañ koy def ci keesu jumaa ji wala nañ ciy jox imaam nangam kiy jàngale wala sëñ daara bi nañ ko ciy dundal wala nañ ci tabax daara sàngam su boobaa loolu mooy doon wax waqfu waaye lépp loo xam ne su ko nit ki financé mu jeex loolu kenn du ko tuddee waqfu sarx lañ ko tuddee ponk bu njëkk bi kon maal mawquuf dafay am mooy alal ji nga xam ne moom la ñuy wax foo beneen bi ci des mooy mawquuf alayhi mooy ñi nga xam ne ñoom lañ koy jox ñu ñu koy jox danañ ci ñëw ñaari xaaj lañu muy al waqful ahli ak al waqful xayri ñi nga xam ne ñoo war a jël waqf ñan la ak siixatul waqfi anam gi nga xam ne moom lañ koy tëggee ndax nit ki su xasee nag ba def waqf amatul droit dellu ci ginnaaw bu ñëwee wax fu dana gën a dana gën a leer su ko defee xeeti waqf yi nag ban ak ban la wax fu ñaari xeeti waqfu la am jàpp ñett bu njëkk bi mooy li ñuy tuddee al waqful ahli mooy nit ki ne sama alal ji lu ci génne jox naa ko sama njaboot sama doom wala sa ku bokk ci ñoñam nga xam ni ci ahloom la bokk ci ay mbokkam mu jël ci nangam jox la ko <coughs> nit ki dafa am ay mbokk yu néew doole masalan mu jënd ab magasin luye magasin bi ne su weer dee lu génneti ci magasin bi nañ ma ko joxal sama rakk wala sama tànt wala sama nangam ñu di ko dimbali ko saa yu weer dee rek lu ñu fayee ko ci place boobu ñu jox leen ko loolu waqfu ahli la tudd bi ci des mooy waqful xayri mooy wax fu boo xam ne fi nga koy dugal jullit ñépp a ko bokk ni ki lu génn ci sama bitig bii walla lu génn ci sama kër yi wala lu génn ci sama tool yi nañ ma ko defal ci jumaa ji wala nañ ma ci tabaxal daaray alquran wala nañ ma ci dundalal donga yi wala nañ ma ci defal nangam ak nangam tabax tabax dispensaire wala lépp bindub teen wala defal nit ñi ay tiwooy ndox mu dem ci quartier yi périphérique yi yooyu yëpp mën naa dugg ci ci waqf waaye foofu waqful xayri la ndax loolu loolu ñëpp a ko bokk lu ñëpp mën a jariñoo la su dee waqfu ahli nag loo xam ne kenn nit wala ñenn nit nga koy nga koy defal mu ñetteel bi mooy ki nga xam ne dafa waqfu ne lii nañ ma ko defal ci njaboot gi lii nañ ma ko defal ci yoonu yàlla kon benn li mu génne ci alalam joxe ko ngir aw nit mooy benn bi bi ci des mooy li mu génn ci alalam jox ko loo xam ne ñépp a ko bokk ak li nga xam ne da ko génne ne xaaj bi nañ ko jox nañ ko jox mbokk yi li ci des nañ ko def ci yoonu yàlla kon muy ñetti xeeti waqfu yi nga xam ne moom lañ am waqfu nag am nay chart ku bëgg a fu am nay chart yu tax nit ki mën a def waqfu chart yooyu bi ci njëkk mooy kiy fu ki nga xam ne day jël alalam di ko waqfu day nekk mukallaf moo xam ne am sañ-sañu jëfandikoo ci alalam parce que am na mukallaf moo xam ne amut sañ-sañu bu la mayee may ji daganut bu la saraxee sarax ga daganut te moo moom alalam ngir lan xel mu matadi wala ak ndof ab dof ab dof bu amee alal kum ko may may ga may ga mooy ne lislaam du ko du ko nangu koo xam ne am xelam matu yi tamit lu mu def ci alalam lislaam du ko nangu ndax xelam matul moo tax kiy fu faw mu nekk koo xam ne mu kallaf la moo xam ne am na sañ-sañu jëfandikoo ci alalam am na sañ-sañu jëfandikoo ci alalam li ñuy waqfu yi tamit sartu ñaareel bi mooy li ñuy wax fu nekk jëmmu nekk jëmmu maanaam lu mu jot lu mu téye ci loxoom an yakuna aynan dagganul nit ki di wax fu loo xam ne jotagu ci loo xam ne jotagu ci wala loo xam ne bor la sañul mu def ko wax waqfu misaalu daalika joxe ci benn misaal dafa am kër goo xam ne da koo leble te jotagu ca wala mu ngi koy jënd te fayagut ba noppi bu ko waqfu déedéet mënu ko faaw day dem ba jot ci ba noppi su koy wax fu mu door caa jot kon nit ki lu mu jotagul wala loo xam ne bor la sañu ko def waqfu sartu ñetteel bi mooy suy waqf yi tamit mu bañ a nekk wax waqf mutlaq mooy mu ne sama alal ji daal wax fu naa ko rek su wax fu du wér faaw day wax ne lii daal joxe naa ko mu jëm ci benn mu nekk waqfu xayri wala mu nekk waqfu ahli waaye sañ ca tëba tëb rek wax ne wax waqfu mutlaq la déedéet faaw mu am fu mu ko jëmale bokk na ci charte yi nga xam ne mooy tax wax fu wér mu bañ ko aj ci dara mooy mu wax fu ko te yàlla tax maanaam mu bañ koo aj ci benn condition mu bañ ko aj ci benn condition nga xam ne danaan sama kër gi daal joxe naa ko waqfu naa ko lu ci génneti nañ ko nañ ko def ci yoonu yàlla waaye nag su ma ko soxlaa dama koy jaay te xam nga ne ku defal wax waqfu ci alal moomatoo ko sañatoo koo jaay sañatoo koo maye sa njaboot duñ ko donn sa njaboot duñ ko doon kon benn charte maanaam benn charte duñ ko ci nangu suñ jëlee anam yi nga xam ne alwaqful islaam yi dana ci ni ma ni ma waxee woon ci dana ci ci ay majaalam anam yi nga xam ne xeeti waqf yi nga xam ne am na ci tënk rek ñu mën koo indi nga xam ne lislaam liggéeyoon na ci lu rëy te ñu war koo delloo siwaat li tàmbalee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci dawlal osmaniya fi mu daanoo ba ci boo ñëwee ñun ci suñu réew yi Afrique yi Sénégal xusuusan mboolem jumaa yi waqful islaam yi moo ko tabax mboolem jumaa yi waqf moo ko daan tabax ndax soo demoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp jamonoy saxaaba yi ba ci dawlal amwiya jullit ñi dañ doon njëkkalante ku am ñaari tool sax ndax boobu nit ñi bay la ñuy def ku am ñaari tool sax da ngay jël benn tool bi féetale ko yoonu yàlla su ko defee bu ñu amee fukki nit wala ñaar fukki nit ñoo xam ne dañuy am ñaar fukki tool ñaar fukki tool yooyu la cay génne mooy tabax jumaa yi mooy faj nit ñi mooy dimbale néew ji doole yi mooy def nangam ak nangam ak nangam ak nangam ci ay xeeti mbaax kon suñu ñëwee ci waqf bokk na ci ay abaadam mooy lépp loo xam ne dafay taxa société bi mën a dund mooy société islamique ci wàllu social ci wàllu économique ci wàllu culture ci wàllu humanité loolu lépp danañ gis ne ay ay domaine la yoo xam ne waqful islaam yi liggéey na ci liggéey yu rëy te dana feeñ ci lii ñuy bëgg a li ñuy bëgg leeral jàkka yi ak mboolem lu aju ci jàkka ak mboolem lu aju ci jàkka mooy xam waaju waay yàlla moo xam dëkkuwaayu imaam ya moo xam dundu noddukat yalla moo xam imaam ba ko de ba koy jiite ba waqfu di am doole dëgg ñooñu mboolem lu leen di toppatoo wax waqfu islaam yi moo ko daan saytu moo ko daan moo ko daan saytu ngir jullit ñi xam gu ñu xam ne xam xam gu ñu xam ne doomu aadama loolu muy def ci yoonu yàlla ci saa su fi bàyyi ko dafay wéyal di ko amal di ko amal njariñ moo tax bokk na ci nga xam ne waqf liggéey na ci liggéey yu am am solo muy tabax ay jàkka tabax ay jumaa ni ma ko waxee woon ak lu aju ci jumaa muy imaam baag noddukat yaag saytu jumaa ji defar ko ba mu baax ak setal gaag ak jàng jàngale ci biir jàkka yooyu yépp waqful islaam yi ba muy am moo ko daan toppatoo moo ko daan moo ko daan toppatoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ci mari ci masjidu Quba ni mu ko leeralee léegi ku bëgg def waqfu soo la neexee nga jël ci sa alal loo xam ne danga cee tabax jàkk wala nga tabax ci jumaa waaye nag day fekk cosaan li daf yi des nuruwul ak sarax nga dem lijjanti ba am sa million wala 2 million dem tabaxee ko jàkk loolu tabax nga jàkk waaye tabaxoo ko ci amenu anamu waqfu su dee waqfu li génn alal ji moom dafay des li génn alal ji dafiy des waaye la muy génne moom ngay tabaxee moom ngay tabaxee maanaam cosaanu alal ji moom day des waaye la muy génne moom la moom lañuy ñuy jëfandikoo waqfu daana liggéey ci wàllu jihaad fi sabilillahi moo tax ñu wax ne Xaalid ibn Walid mu radiyallahu anhu mooy saaba bi ñëkk a jël mbubbum koongam ak matérielu geeram daf ko waxfu bi mu demee ba mënatul a guerre dafa jël yére yi mu daan guerre dal di koy teg ci ci jàkka ji mbaar ju mën a tee xare ji ngir yoonu ci yoonu yàlla te amoo loo sol amoo ngànnaay kaay jël lii nga dem xare ci soo xaree ba noppi nga indiwaat sama ngànnaay teg kon ndekete ngànnaay sax nit ki mën na cee ngànnaayul jihaad waaye waqfu yi tamit nit ki mën naa jël ci alalam comme ni mu daan amee saxaaba yi am na ñoo xam ne comme ci jamono yooyu jamonoy geer la woon ñoo xam ne dañoo jëloon lenn ci seeni tool wala lenn ci seeni jur def ko waqfu jënd ay fas taxawal ko ñenn jënd ay gëléem taxawal ko ne saa su xare jotee na ko nit ñi war dem xare ji suñ noppee ñëw delloo si taxawalaat ko wala ñu jël ci seeni alal def ci waqfu alal jooju ñu ci ñu di ci waajal jàmbaar yi war a xare ji lislaam loolu daanañ ko waqfu daana ko liggéey moo tax Salahuddinul Ayyubi tabaxoon na quartier bu mag boo xam ne ci alali fu ci la ko defoon ca dëkkam boobu muy Bilbis ci ngëneeli fu bokk na ci ay liggéeyam mooy lii nga xamee ne ay xew-xewu diine waqfu da ko dafa dafa da ko fonk lool muy lu deme ni tabaski walla korite wala yenn yi nga xam ne Aydul Adha Ashura ak yu mel noonu waqful islaam yi daana ci liggéey yu ama am solo yu mel nan mooy am na ñoo xam ne daanañ jël ci seen alal loo xam ne dañ naan lii daal dafiy des saa su tabaski jotee lu mu génne ñu seen néew ji doole ñu jënd leen ci ay xar saa su korite jotee ñu seet ñi nga xam ne seeni waajur nekkatuñ fi ci jamono ñu jël ci alal joojee séddale leen ko ngir ñu mën a lijjanti seen bopp saa yu Ashura jotee. ñu jël ci alal jooje jox ñu néew ji doole yi ñu mën a feetu waaye saa yu weeru koor jotee yi tamit daanañ jël ci alali waqfu di ci def ay mawaidul iftaar di ci def ay programme yoo xam ne dañ ci defal nit ñi ay ndogu ñenn ñu leen ci defal ay xadd ci néew ji doole ñi loolu waqfu liggéey na ci liggéey yu mag ba bi waqfu di am doole biir jumaa yi ak jàkka yi ku ma sa xiif ci jamono weeru koor fa ngay dem ni nga xam ne alhamdulilahi rabbil alamin ni lañ koy gisee léegi ci réew mi ci saa su weeru koor jotee jumaa yu bari dañuy taxaw di def ay programme yoo xam ne ku fa dem mën nga faa ndogu waaye léegi léegi tamit bu xadd jotee ku bëgg a xadd mën ngaa dem foofa nga xadd daal di daal di lool daal di mën a wéyal sa sa liggéey na lu bare bare bari ci. ci wàllu jàng ak jàngale surtout wet googu mooy wàllu culture bi li ci islaam yi liggéey mënees na ko waxtaanee fii ba suba te du jeex mënees na ci waxtaanee fii ba suba te du jeex ndax boo demee ci ku mel ni Ibnu Jubayr dafay wax ne Bagdad kese kese kese bi mu fa demee moom ca tournéem boobu mu doon def fekk na fanweeri école yoo xam ne école yépp wax waqf moo ko tabax maalul fu lañ ko tabaxee nit ñi jël nañ ci seeni alal wax waqf joo xam ne tabax nañ ci fanweeri école yoo xam ne yii état bee ko tabax yii ay nit ñoo génn ci seeni alal tabax école yooyu waaye école yooyu ña ca doon jàngee daawuñ fay dara ma jaanan la doonoon ma jaanan ma jaanan moom la nekkoon noonu la école yooyu nekkee woon ca ca ca ca Qahira Dimashq ak feneen ak feneen ak feneen ci ci dëkk yi jëkki jullit ñi moo tax ibnu xaldun muy mi ngi wax ne euh, soo demee ci baxdaad ak xurtuba ak kuufa ak basra ak xayrawaan ak faas gis na fa ay centre centre yi jànguwaay yu mag yoo xam ne bi mu fa demee yéem na ko lool bi mu laajte ne école yu mag yi centre yu mag yi ana nit ñi nan lañ de ba tabax ko ñu ne ci alali waqfu ci lañ ko tabax te boobu état amul buy tabax waaye alali waqf ndekete moo daan tabax sax daaray jàngukaay yu mag yi nga xam ne moom la moom la nit ñi daan jànge soo ñëwee ci wàllu bibliothèque nit ki sañ naa jël ci alalam ci waxfu bi muy def mu defar ci bibliothèque te loolu lu amoon sol la ci jàngal nit ñi ci jamonoy jamonoy al usurul islamiya jamonoy asrul abbas yi ak asrul amawi rawatina borom xam-xam yi li nekkoon borom alal yi li nekkoon seen yitt ju gën a bari mooy gannaaw am na ñuy tabax ay école ñoom ñu fexe ba ci jumaa yi ak béréb yu am doole yi ñu jënd fa ay pàkk ci seen waqf yooyu tabax ci ay bibliothèque yoo xam ne bibliothèque yu mën a am njariñ la borom xam-xam yi dañ fay ñëw di fa di fa jàng di fa yokk seen xam-xam di fa def ay di fa def ay gëstu moo tax ñu wax ne banu Ammaar ci Trablus Sham defoon nañ fa benn maktaba boo xam ne amoon na un million de million livre un million ña benn million ay téere ci kutub islam yi ak gayru islaamiya te ñoom ñoo jëloon banu amaar rek ñoo jël ci seen alali wax fa tabax ci maktaba boo xam ne bi ñu ko tabaxee ba pare dañoo génne xaalis bu dul jeex dem jëndi million wu téere xam ngeen million wu téere dëkk bu mu ne dëkk boobu bu leen yàlla dimbalee war nañoo mën a bari xam-xam te loolu waqful islaam yi liggéey na ko ba ñëwee ci ibnu Jubayr ba kadalika muy nettaliwaat mu ne soo demee Masra nee na gis na fa ay maktaba yu mag a mag yoo xam ne li ci gën a yéeme mooy maktaba yi dafa mujj mel ni ay école sax ndax alali waqfu jiñ daan dajale moo daan moo daan tabax maktaba jënd ay téere di fay ki nga xam ne moo yore maktaba bi waaye ñi fay ñëw nga xam ne dañuy jóge ci dëkk yu sori ñëw di fa jàng si ci maktaba bi maktaba bi moo leen di yoral seen dund yoral leen seen tëdd waaye di leen wutal bourse bu ndaw buñ mën di dundee ndekete gis nga loolu ci alal waqf sëñ Modou ci la ko nit ñi daan mu ci lañ ko daan génne di ko def ci lañ daan defee ci lañ daan defee loolu bokk na ci li fu def soo demee ci wàllu sante wax naa ci wàllu njàng wax naa ci wàllu wàllu wàllu wàllu bibliothèque yi wax ci wàllu jumaa yi waaye noonu mu mele ci anam yooyu noonu la mele ci am anamu anamu santé yan liggéey la wax waqf def ci anamu sante wax nañ ne mboolem dispensaire wala hôpital yi amoon ci dawlal amawiya ak dawlal abbasiya hôpital yooyu ci waqful islam yi ci lañ ko xew ci lañ ko ci lañu ko tabaxewoon waaye hôpital yooyu nga xam ne dañ ko tabaxoon ci waqf ñi ko tabaxoon dañ ko tabax ba pare wéy continuer di ko yore nga xam ne ku fa faju doo fa doo fay doo jënd garab soo fa interné maanaam bu ñu la bu ñu ci biir doo fay dara lépp dafay nekk maa ngir jëm yàlla ndax ñi ko doon ñi ko tabax hôpital yi ñi ko doon tabax te jëlee woon ko ci seen alali waqf liñ ci jublu woon mooy fexe ba am yool bu leen mën di fekk fa tëdd su ëllëgee saa suñ fi bàyyi bokk na ci liggéey misaal yuñ mën a joxe rek ngir wane dayo bu xidma waqfiya wala xadamaat waqfiya def mooy hôpital bi njëkk am ci lislaam ci xadarul islaamiya waqf moo ko tabax te mooy hôpital bi nga xam ne Haarunu Rashid moo ko tabaxoon ci Bagdad waaye tabax ko mu nekk nit ñi di fa faju gratuitement nizaamul waqf di ko di ko yore di ko yore yeggoon nañ ci wax fu am ay quartier yu ñu tabax nga xam ne ay quartier sanitaire la maanaam tabax quartier boo xam ne day am hôpital am fu ñuy jàngalee am paj am fu ñuy jàngalee ay garab am lépp nga xam ne quartier bi yow boo fa nekkee ñi fa dëkk ñépp ci wàllu faj lañu ci la ñuy liggéey ay quartier général yoo xam ne quartier général de santé la lislaam yeggoon na ci doole foofu te ci jël ci alali wax yi di ko tabaxee ay maanaam ay ay hôpital yu yoo xam ne wala ay quartier général yoo xam ne quartier général de santé la nga xam ne am paj ay hôpital lañ fay def ay école de santé ay école yoo xam ne dañ fay fajee dañ fay jàngale wàllu pharmacie wàllu pharmacie wàllu pharmacie loolu loolu yeggoon yeggoon nañ fa téere taarix yi wax nañ ne ci Masr hôpital boo fa njëkk am nga xam ne ci alali waqf moom lañ ko fa tabax kan moo ko tabax Fathu ibnu Xaaxaan ibnu toloon def na fu hôpital bu mag ak yeneen i yeneen i hôpital yoo xam ne boo ñëwee ci alamul islaam yi yépp da nga ko fa fekk loolu ñi ngi ko ñi ngi ko tabaxee ci alali waqf kon wax fu yi tamit noonu mu mel ci domaine yee noonu la mel ci domaine social maanaam dimbal dimbale nit ñi liggéey na ci liggéey bu ama am bu ana bu am solo am na alal yoo xam ne waqf yoo xam ne defoon nañ ko ngir lan ngir nit ñi nga xam ne dañ leen a for am na ñoo xam ne génne woon nañ ci seeni alal ay lim yoo xam ne li ko taxoon a jóg mooy nit ñi nga xam ne dañoo dañ leen a for maanaam dëkkuñ ci dëkk bi wala ñu for leen wala ñu ay liir yu ñu for wala ay nit ñu néew doole ñoo xam ne kenn xamul seeni i bokk ñu dëkkal leen ca kër yooya waaye di leen wutal ab budget maanaam di leen wutal ndàmpaay loo xam ne bu weer dee dañ ko yëkkati leen ko jox ñu di ko dundee lislaam yeggoon na foofu lislaam yeggoon na foofu li am Europe nii nga xam ne ku fa nekk doon citoyen européen dëkk France masalan su weer dee même boo liggéeyu dañ lay jox loo mën di dundee di ci def say transport di ci def say say soxla yu ndaw loolu lislaam yeggoon na ci nizaamul waqf di ko defal néew ju doole amoon na waqf li ñuy tuddee waqful yataama mooy tabax ay kër dëkkal fa ñi nga xam ne seeni waajur dañoo jiitu wala dëkkaluñ leen fa waaye dañ leen di wutal ay payoor ay pension yoo xam ne saa yu weer dee dañ leen koy jox ngir seen xel bañ a dem ci seen waajur yooyu nga xam ne dañoo génn àddina amoon na waqf yoo xam ne ci li ko taxoon a jóg mooy mag ñi nga xamee ne dem nañ ba néew doole ñu wutal ay ay lu ñu leen di compal ci alalu waqf di leen ko jox ngir ñu mën di ci faj ñoom it seeni soxla gumba yi sax wutaloon nañ leen wax fu boo xam ne daa nañ leen fayal di leen fayal ay nit ñu leen di wommat ñuy dem di ca jàkka ja ak di dem marché te boobu alal yi wax fu moo ko daan fay kon ndekete waqf liggéey na lu rëy ci lislaam waaye ndekete gis nga dem nañ ba mel ni wax waqfu sax ngir nga dugal ko ci bopp nit ñi sax boo ñëwee ci wolof sax waqfu sax baat bi ci wolof far baatu waqf amul ci wolof waqf rek nga mën a te gis nga ndekete liggéey bu rëy bu lislaam am ndam lu lislaam am rek mën nañ ne bari na ci loo xam ne ci wax fu la ko jaare ba mën koo ba man koo def gumba yi mag ñi woy néew ji doole yi ak yépp fu yeggoon na ci dimbale société bi baw alali waqf daan nañ ci takkal nit ay soxna takkal nit jabar am na alali waqf yoo xam ne dañ ko daan teg saa su at mi jotee ñi seen ndaw yi nga xam ne bëgg nañoo am soxna te amuñu luñ mën a yore soxna amuñu can ñu yëkkat ci àll yi wax yooyu waajal leen bañ mën a am ay soxna loolu wax islaam yi liggéey na ci lu am am solo bari na ñoo xam ne ci bu njëkk si alal ñu takkee soxna ci waqful islaam yi ca la ca la jóge yeggoon na ci bi lislaam di am doole dëgg amoon na lu ñu tuddee waqful ummahat fun li imdaadil ummahaati almurdiaat bil xalibi wa sukkar nga xam ne yeggoon nañ ci alali fu ji daa nañ ci génne lu ama am solo di ko jox waajur yi nga xam ne dañuy nàmpal te te te néew doole loolu soo demee tey ci Europe li ñuy tuddee prime de lait prime de lait mooy Europe boo fa nekkee di nàmpal yoro doom di ko nàmpal am na xaalis bu ñu lay jox pour nga di ci jënd meew ak di ci jënd ay ay vitamine ngir sa doom man di nàmp bu baax loolu lislaam da ko daan def mooy jigéen ñi nàmpal ñu yëkkati yi alali sarax ji nga xam ne mooy mooy mooy waqfu di ko dimbale jigéen ñi nàmpal ngir seen doom yi bañ a néew doole ndekete gis nga lii lan nañ ci déggee mooy ndekete lislaam yuy sew sewaan yu néew doole yi sax ndekete fàttewu ko xoolal jigéen ñi nàmpal tey amul sax soow lislaam ma ngi koy bàyyi xel ba ne alali waqfu ji am na ca cër boobu dañ ko daan dajale di ko jox jigéen ñi ngir nit ñu di ci man di di ci mën di dimbalikoo moo tax wax nañu ne Salahuddin al Ayyubi wutoon na mangasin boo xam ne mangasin céréales la comme ni ñu ko gisee woon ci dëkk yi jamono yële ci ginnaaw nga xam ne dañ fi daan indi ay sunguf meew ak yooyu di ko peese xale yi di leen ko may loolu Salahuddin Ayyubi moo ko njëkk a def defar ay magasin yoo xam ne ay céréales la fay def ak ay meew di ko dimbalee xale yi nga xam ne dañuy nàmp ak xale yi nga xam ne seeni waajur yi dañoo néew doole ci ci ci ci loolu. wax fu ci wàllu social gis nañ ne am na ay kër yoo xam ne waqfu daana ko tabax ngir ni nit ñiy dëkkee daanaka kenn ku ne amoon néeg yu doy ñu tabax kër gu mag ci dëkk bi ku yëkkati ci alal foom tabax ci kër goo xam ne mboolem gan gu ñëw ci dëkk bi fa ngay dem dalloo fa jëfandikoo kër ga saa su sa dem jotee nga nga mën a dem waaye bokk na ci liggéeyu wax fu sax mooy am na wax waqfu yoo xam ne nañ ko def ngir ñi nga xam ne dañoo néew doole yore ay bor nañ génn ci alali waqfu ñoo xam ne dañoo jëloon ci seeni alal aslëf nga xam ne ku am bor da ngay dem foofu nga ne man de dama am bor ñu ne la ñaata nga yore ci bor nga ne nangam ñu bind la saa su alali waqfu ji jotee ñu woo la woo ki nga yoreel bor ñu ne lislaam fayal na la sa bor loolu lislaam def na ko ba tàyyi te ci alali ci alali waqfu ci la ko def muy fay ay bor waaw kon lu ama am solo la am na ñoo xam ne jël nañ ci Makka ak Madina alxaramayni ni jëloon nañ seen alal waqf ko fa nga xam ne dañu naan lii lu ci génne def nañ ko ci màkk ak Madina loolu lu yaatu la ci diggante alxalij ñoo xam ne seeni alal li ci bari dañ koo jaayante ne lu ci génn joxe nañ ko joxe nañ ko fi boo ñëwee suñu réew yi tamit suñu seetee ku mel ni Cheikh ku fonkoon waqf la ndax boo gisee kaar yi sëñ Murtala yii di sharikatul azhar li naq naqlil bari soo ca gisee ca wet ga sëñ Murtala daana ci bind waqfu lillaahi mooy oto yi kenn sañu koo jaay kenn sañu koo maye kenn sañu koo donn lépp lu oto yi génne jullit ñi ñoo ko moom waaye la cay génn nañ ciy financé école yi azhar yi ngir nit ñi mën di jàng te kenn du fay boo jëlee ci institut al azhar sëñ Murtala yëpp waqfu lillaahi la sëñ Murtala da koo defoon waqfu ngir lan bu njëkk sax xam ngeen ne 1975 jamono yi sëñ Moustapha Bachir di nekk directeur Al Azhar sëñ Mourtala da ko waxoon ne ko école yi waqf la léegi bu élèves yi bu kenn fay waaye su weer deewatee na ngay ñëw may fay élèves yi élèves yi jàngi Azhar am toog nañ lu mat at wala ñaari at <coughs> yoo xam ne sëñ Mourtala mooy fay élèves yi au lieu que élèves yi weer dee ñëw fay waaye sëñ Mourtala moo leen di fay ci. xam jamonoom da ko wax ne ko jamono ji nit ñi de lu ñu dugalul seen alal duñ ko fullal nañ fexe ba nit ñi saa su weer dee ku ne loo ca mën a barkeeloo nga barkeelu ko ca waaye sëriñ bi moom kenn ku ne xam na ne école am ay école la yoo xam ne ay école gratuite la nit ki lam cey joxe lu ay somme yu tuuti la yu symbolique la rek ngir ngir ngir ngir loolu suñu ñëwee ci jumaa yi ak yu baree baree bari wax waqfu Cheikh Mouhamadul Fadal ku fonkoon fu la wax nañ ne dëkkam yim sancoon yépp li ci daan génnee dafay wax ne bu bayee ci jumaay waa ji la koy def mag ñi tamit dëkk yiñ goroon borom Daarul Muxti mën nañ ne li tàmbalee Tuubaa ba fii moo ko goroon waaye mboolem dërëm lu fi mas a génn ci mbay mi wax fu la ndax sëñ Tuubaa la koy yët sëñ bi defal ko ko ci yoonu yàlla ci loolu la nekkoon dëkki murid yi dëkk boo ci danga fa fekk li ñu tuddee toolu àllarba toolu àllarba boobu mën naa taxaw taxawaayu waqf ndax tool la bu ñuy bay suñ ko bayee ñu jël njariñ la joxe ko ci yoonu ñu defal leen ko ci yoonu yàlla waaye tool ba dafay des su dewee ne ñu bàyyaat ko yooyu yëpp ay xeeti waqfu la yoo xam ne nit ki mën na cee mën na ko mën na ko mën na koo jariñoo xam naa dama doon tënk rek euh, te waxtu wi mel na ni jege na liñ ci mën a waxtaan bari na waaye ñuy jéggalu su borom xam-xam yi toogee moom daanaka da nga da nga dootul xam fooy tàmbale noo ngi jéggalu bu baax di ziyaarawaat kilifa yi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, jërëjëf sëriñ euh, Moustapha Mbacke euh, waxtaan wi yaakaar naa ne am na solo ndax thème bi moom jàpp naa ne képp koo xam ne doon nga ko diglu rek mën nañu wax ne jariñ njariñu jariñu ko ci jariñ lu am solo ndax xamal nga nu lan mooy waqf képp koo xam ne xamoo xamoo woon lan mooy waqfu da nga ko xam xam nga ko xam bi nga déggee waxtaan wi xam nga ko. xeeti waqfu yi nga xam ne moo am yëpp wax nga ko wax nga wax nga xam xam xam nañ ko ci biir mboolem fi waqfu tàmbalee ci lislaam it ñi ko njëkk a def ci lislaam it ñëpp wax nga ñu ko wax nga it waqfu njariñ li nga xam ne am na ko ci jullit ñi kon sëriñ Moustapha muassasatul Wafa bi xooxel imaan mi ngi lay sant di la gërëm di la gërëmaat ngërëm yoo xam ne yàlla sunu borom lañ koy seeral di ñaan sunu borom mu dëgëral sa taxawaay eh, ni nga ko waxee léegi eh, eh, ni nga ko waxee léegi yow moom wax nga ko ci sa biir njëlbeen sunu wëlëre nga sunu xarit nga ndax ban nee ca daara ja wax dëgg yàlla bokkoon nga ci ñi nga xam ne daa ñu taxaw taxawaay yu am solo ci liggéey ba loolu ñu ngi sant baax di xam naa nag dañuy jox sëriñ Ousmane nga àndal xam naa moom doon na waxtaan bu baax mu def xam naa boo xam ne bii incha allah ci ci waxtaan bi la doon yaakaar ku fi teew ku doon teewlu am nga njëriñ yu bari yoo ci diglu sëriñ Ousmane bisimilah. ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu mel ni dañuy tënk rek eh, taxaw seetlu bu gàtt rek. Euh, ci waxtaan wi nga xam ni mën nañoo wax ni suñu ustaas la sëñ Moustapha tomb yim jukki yépp benn bu ci nekk rek doyoon na waxtaan mu mel ni nag bu ñu nee waqfu defe naa ñi ëpp ci ñun wala boog ñi koy déglu dañuy dégg baat bi rek waqfu waqfu waqfu te boo xoolee fim ko tàmbalee ci jamono yi li jiitu sax lislaam di ñëw ci biir jàngata mu mel ni dafa jàngale ni demoon na ba fu yoroon maanaam dundub aw askan ci biir tomb yi boo ko jàngatee da nga ci dégg loolu ba ci lislaam nga xam ni kon e, demoon na ba nga xam ni saaba yi bu ñu daan jóg di takk xare te ku ne xam ne ni jihaad ji ñu daan def di xeex ak noonu yàlla yi faw munta ñàkk ñu am loo xam ne ay ndimbal lay doon ci ay waruwaay wala ay ngànnaay yoo xam ne danañ ko mën a jëfandikoo pour mën a jàkkaarloog noonu suñu borom yi loolee nag daanañ ci jëfandikoo waq fu joxe nañ ci misaal ku mel ni ten boobu nga xam ni moom la Seydina Ousmane Ibnu Affan jëndoon ci yahud boobu te muy jamono joo xam ne ñoom soxla woon nañu ko lool ba ci ni nga xam ni noonu la ñëwee ci dawlatul umawiya ba ci Turquie bi nga xam ne xëy na yàggut nga xam ne boo dee xool mën nañoo wax ne ci pays yi nga xamante ni ñooy dund dëgg dëgg lislaam la ko fa gën a dëgëral mën nañoo wax ni ne waqfu lillaahi ca la bokk euh, mu ñëwaat aussi jàngalewaat ci suñu réew yi nga xam ni euh, mën nañoo wax Afrique mën nañoo tudd Afrique bi yëpp rek nga xam ni fu ci nekk mën nañoo wax ne la fa dugal lislaam ba dëgëral ko fa fu la jóge moo xam boo xoolee ci ñi ñuy tudde rawabit wala yu mel noonu nga xam ni ay nit ñoo jóg xëy na doonoon ay commerçant dugg ci dëkki Afrique yi waaye la leen fa duwal ci fu la jóge ndax li ñuy tudde rasu maal bi ñu yoroon doon ko commercer ci fu lillaahi lañ ko jëlee ba ni mu ñëwee Maroc ba lislaam ni mu ñëwee Sénégal mën nañoo wax ni kon tem la boo xam ni bu ama am solo la te it bu ñu war di jàngat la ndax ñun ñi ëpp ci ñun dafa mel ni dégguñu ko dégg giñ ko war a dégg dëgg dëgg defe naa bu ñu déggoon waqfu lillaahi ci jamono ji ñu toll yaakaar naa ndool gi ñuy dund wala coono bi ñuy dund lu baree bari dana ci wàññiku rawatina nag li ñuy tuddee ñun ñi nga xam ne ñoo tënku ci almuridiya boo xoolee mën naa wax ni senegal Sëriñ Tuubaa képp la yàlla jox pouvoir bu soxla woon tey téeméeri milliards mën na ko am am na jëmm yoo xam ne suñu borom may na leen kàttanuk alal ba lu sëriñ bi laajte mën nañ koo joxe am na ñoo xamante ni am nañ seen kàttan mën koo joxe ngir jëmmi sëriñ Tuubaa waaye day jaar ci sëriñ bi waaye jëmmi yàllaa tax ndax bu ñee wax fu yàllaa tax kon bu fekkonte ni lu mel ni suñu dëkk yii gën nañoo organiser wu xool li nga xamante ni eh, jàpp nañ ni buñ ko defee mën naa gën a dëgëral yoon wi gën a dëgëral nit ñi ñu gën a am pas-pas ndax kat danaa koy faral di wax gis nga bari na ci gone yi léegi ñoo xam ni leneen a ngi leen di fëkk te la koy waral lenn képp la muy ñàkk fu nu jëm wala ñàkk lu ñu def loola nag ñun war nañ cee xalaat bu baax ñi nga xam ni boroomi xam-xam lañ leen di tudde di ay ndaw ñu jéem a xool yoon yoo xam ne buñ ko jaaree dana doon ay waqfu ñu jël ndaw ñi tàggat leen jàngal leen li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg def ko ci ñoom loola kat la nga xamante ni moo koy mën a sottal mooy ñi nga xam ne yàlla dénk na leen am koom ñu nangu koo génne ngir jëmmi yàlla def ko ci waqfu ñi yàlla dénk xam-xam ñu génne ko ñi yàlla dénk kàttan ñu génne ko buñ ko boolee defe naa ni mën nañoo am li nga xam ni moom lañ bëgg xëy na xat na waaye eh, dañ doon barkeelu rek ndax am na ay laaj defe naa kon ñu ngi jéggalu bu baax jërëjëf. jërëjëf Serigne Ousmane Mbacké ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xam ni. def nga ko ci waxtaan waxtaanu sëñ Moustapha Mbacke wi muy taxaw seetlu bu am solo am na ay laaj yu bare bari yoo xamante ni aju na ci waxtaan wi waaye xatu waxtu wi tax na dañ koy jégalu rek incha allahu taala waaye laaj yi bari na lool waaye nag waxtu wi moo xat boo defee rek incha allahu taala suba ci gaaw bi ñu ngi war a dalal Oustaz baara Gueye